ñu leen di xamal ni projet du am tay du am ëllëg te Ousmane Sonko ñun Pastef département bu Rufisque nee nañu Ousmane Sonko waxuma la du dem procès waxuma la buñ ko laalee mais buñ ko jegee suñuy bakkan la ñuy jël door koo jël loolu il faut que mu leer te di am lu ñuy fàttali lu yàggul dara gis nañ fi kaaw Khalifa Sall jaay nañ ko fi doole def ko li ñu koy def jaay fi doole Karim Wade ah Ousmane Sonko nag moo leen dese dañ leen wan ni loolu du mës a am. waxuma la laal ku ko laal laal laal laajte waxuñu la laal sax mais jege sax buñ ko ko defee gistu Ousmane Sonko mayewul ablewul saraxewul loolu il faut que ñoom ñu bëgg fi may mujjee mooy seen tappale yooyu ñu naan chambre criminelle nagu seraf la kuñ fa yobbu do génn xamuñu nak mom lu muy wax mais ñun duñ ko bàyyi mu dem procès tay duñ ko bàyyi mu dem procès ëllëg té lu mu laaj dinañ ko def dinañ ci teg suñu bopp mais mu nag nak moy maangi parce que aussi droit de résistance constitution bi moñ ko may ñun du ñun ñooy joxe ndigal li ñu ci bari ñu ngi tok di wax ndigal di wax ndigal ndigal Macky Sall mo koy joxe té mom rek lañuy la ñuy déglu